moom ma gëm damay toog di ko xaar ci médité ndax man bu ma geesu gisuma leen yéen mu dem ko waajal moo moo moo ma moo ko ma koy da ma ciy teg la waajal ñi koy ànd ak man. te daa tànn ñi ko gën ñi ci gën ca moom la crème bu boole maa ngi. mooy yéen ah kàddu yi baax a baax a baax di boole cant yeeg ngërëm yëpp bu ko moom sëriñ moom rek ko ko yeeyoo. dundee ay jumtukaayam la mu baag Serigne Saliou ba muy màggal daje bu am njariñ ba daje bi nga xam ne moo tax ñu ñu ay mur daje bi nga xam ne moo tax tey doon daje bii am fii tey ci saal bi yéen day bu leen nattam leen it ànd ngeen ko man na ngeen ko a ànd seen gaat wàcce jox ngeen ñuy seen doole jox ngeen ñuy seen i jox ngeen ñu li ngeen man lépp yéen a jeexal ngeen seen doole tàkk ci man te loolu maa ko mën a seet muy góor muy jigéen góor ñi bi ëpp solo ci liggéey bi may liggéey ci taxaw man la bon foofu bu loolu ak waa Touba kon duma ko xalaat a réaliser ndax yéen a ne ci njiitul sëñ Babacar Mbaye maa ngi ciy profité di ko nuyu moom mi nekk ci bokk kuréel Tuubaa digle kenn du fa dégg lu dul noonu sama xel heure bu ma tëddee sama xel bi ndax jiitu ba nga fa jiitu te teg mbooloo mi yëpp ci yoon loolu de maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm mbokk mbokki taalibe yi yi mu atal du ma lim du ma limee damay juum waaye magi taalibe yëpp rek seen taxawaay yëg naa soxna yi li ñuy daj xam naa lu ñu am jox nañu lu ñu am jox nañu cotisé ngeen lu ne def ngeen waaw dara ump ko ci dox li nekk de dëgg la ci maa ngi leen di sant bu baax a baax ci tey ñaan ñu teewee ko ndëgën di déwén te déwén dàqal ñu ren mébét yi nga xam ne nag am nañ ko muy di jëntiwaat seen marché boobu maa ngi ci def naa ci ay jéego waxtaan naa ceeg soxla soosu nga xam ne moom moo war a yore defar marché yi ci réew waxtaan naa ceeg moom ba ba ba ba mel na ni ñu ngi ciy def ay jéego bëgg naa ñu defar soobee Serigne lépp loo xam ne bu ko defee dimbali leen ca dëkk ba na xam ne dinañ ci tax ndax yéen taxawu leen daf maa war bu ma sañoon du ngeen manqué dara. jërëjëf yéen yéen de bu ma sañoon lu ngeen bëgg di ngeen ko. waaye nag bu leen bu leen nattaat leen di ngeen ko. ah liggéey bi liggéeyu sëriñ bi te sëriñ bi la koy fay te yéen de nattaat la wu ma ñu am ngeen gërëm kon nag na ngeen xam ne sama xol nag moom fees sama xol sama xel sama xol sedd joxe bi neex na loo. maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw yàlla nañu ko téye la gën a. yàlla nañu seen borom saxal ko. barkeel njaboot bi defal leen sutura yokk seen wërsëg ba li ngeen yéene ngeen matale ko. waaw sëriñ Sa soxna Aram soxna Kumba maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di jaajëfal gis naa liggéey bi lépp yéen waaw yéen soxna caamam saa su ne may woo lu mu gis lii ma ngay bëgg a yàqu mu woo ma waaw ah, saa su noonu mu wax ni lu baax rek la bëgg moom maa seere ni moom lu baax rek la bëgg ndax léeg mu woo ma ci ay yëf waaw ah, yoo xam ne ndeysaan defar rek yàlla na taxawaay bi yàgg loolu rek nag mooy mooy mooy mooy doxin waaw ah, jërëjëf jërëjëf yaa ngeen jëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm